waa jërë ngeen jëf ñu ngi fii ci Diamaguène 2 fi nga xamante ne mooy Kër Cubb ak ki nga xamante ne moom mooy madame Thiam tey nag ñu fi def ndimbal lu am solo ñu ñëw fekk sama yaay toog ni ñu koy laaj ndax jot nga ci ndimbal li. jot naa ci ndimbal li. Ah. maa ngi sant. Hmm. di ñaanal cubb hmm. di ñaanal ndey Thiam. Hmm. di ñaanal yéen ñi yor rajo bi. ndax man mii. billaahi wallaahi tallaahi aw ma ku ma jox lekk mm. damay ŋàbb sama siwa mm-hmm. di yalwaan ba takkusaan mm-hmm. ma door a dem mm-hmm. jox sama doom ju tuuti ju ma nekkal mu togg su ma lekkee lu doom ju góor liggéey mm. barke Serigne Salim Mbakke mm. doom ju góor doomi jàmbur la waaye man nekkul lu ma am man rek ak sama kër kon maa yal na yokk yàgg wér moog ndey caam fu ñu jublu yal na fayulu yàlla jublu ak yéen ñi yor rajo bi am naa seenug cant amul fu mu yem ceeb bi bari na yàllaa ko xam ceeb bi bari na tarab jàmm gën fi nga xamante ne moom mooy buntu kër ci bu tey nag ñu fekk fi ay aja ay maire ay xale ñoom ñëpp ku ci nekk ñëw ci ndimbali yi noo tudd Ngone Samb Ngone waaw loo xam ci mbir yi ci bu xanaa xam ci moom lu baax rek ndax ñun ñii ci ñun ñooy nekk ak moom ay numaan mhm. cubbu ñu rayal gëléem mhm. cubbu ñu joxu nag mhm. cubbu day yëkkati ay 500000 200000 ne dem leen dugg weeru koor gi dañ fay nekk cubbu dina rey ñaari nag wala ñetti nag boole koog mburu mi mburu dina jënd lu mat téeméeri kilo jinjeer ji dara du manqué yëkkati paas jox ñu ñu togg ba mu baax séddale ñu jox ñu cubu bëggul lu ma naqari cubu mi ngi xool li ma metti cubu cubu dina ma jox alalam dina jox sama njaboot alalam cubu boo man daanaka nag bi mu ñëw ay nu man man la fa fekk waaye wax dëgg yàlla merewu ma ko benn yoon ndax bi waaw ndax bi maa ko dalal mu ñëw ay nu man nag boole boole ñëpp nag ku nekk mu ni ma booleel foo xamante ni eh, njaboota nga fa rek boole ndax man damaa yaatu te samay mbir dama koo bëgg a yaatal mu yaatu lool nag li mu wax sincère ci moom lool cubu ñu jox ñu lekk dinañu jox ñu naan bu ñu toogee sax mu ñëw fekk ñu jotaay sax yëkkati alalam jox ñu ni def leen ba mu neex waaw bu ñu xewlee moo ci gën képp ku xewle rek loxo cubu mu nga eh, mu nga ca biir léegi rawatina nag kii di Ndeye Thiam di jabaram Ndeye moom man moom dama koy bàyyi ak yàlla ndax koo ko yàqul dara moom moo nekk koo xamante ne jigéen boo xamante ne yàqulul dara jëkkëram ndax bu ko neexoon tey jii ñun ay jigéen lañ ñu ànd ak cubu lool nag cubu teeyu ñu bu ko neexee mu ñëw ne cubu gay baal ñi waaye def ko dafa ñëw gën a jàpp man mii di Ndeye Ndour man dama koo ndayale sama doom sama doom xewle mu ñëw def fa loolu loolo loolu lu ma nar def mu ni ma bàyyil man maay def lépp kon na wax dëgg yàlla cubu baax na waaye ndey caamit baax na lool cubu moom ñun moom dañ koy bàyyi ak yàlla rek. tonu ceeb bi bari na ceeb bari na lépp bari na. Mhm. waaw joxan nañ ko macha allah daal. nit ñi kontaan nañ trop kontaan nañ trop sax. Mhm. waaw kontaan nañ trop yow noo gisee grand bi ñaanal yokk rek ah. waaw moom maa ngi yokkute yàlla na jëm ca kaw ca kanam incha allah rabin mook soxnaam ndaysaan soxnaam moom moom dama kaa bëgg rek te yàlla ji tax noonu la demee nag waaw zéro faute merci beaucoup ok kooku mooy doon jibi di rakk jibu ñu ngi koy kontaane